بهدل الله وبهدل بسم الله باسم الإسلام وباسم طريق المريبية وخليفته وباسم سيدنا عباس بن الشيخ إبراهيم الفاتح والمصطفين في طوبى والدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw ziar bi ci kilifa gi ak kilifa yëpp ñu bëgg a gaaral tuuti ay kàddu kàddu yëgle yoo xamante ni bii dañ cee am ndigalu sunu wasila di sëriñ Moustapha Hafsa ginnaaw bi ñu ko junjee li ñu nam ci mawlud bi ak ca gunge ba bu ca ëllëg sax ku ne xam na ni borom daaru mu ak maam Cerno Biraay ni mu fonke gàmm ni mu ko fonke woon gis nañ ni daanaka dina néew ci àdduna bi nga gis kilifa goo xamante ni bii dibéer bu jot ca guddi ga da koy def mawlu di ci màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku tedd ci cheikh bamba xaadimu rasul li mu ko ci joxee ndigal gis nañ ni ca la jóge ñu ko ab jullit di fonke rek mu taxaw ci taxawaay bu gën a kawe loolu egg na ci sax boo xoolee ak njabootam ñu ko tam rek Sidna Ababacar ba ci Zubayru ak Khalid ak njabootam yépp da leen di duppee saaba yonent bi ci ndigalu ku tedd ci cheikh ahmadou bamba xadimu rasul looloo taxoon rek ñu ne sëñ bi waxat sëñ Moustapha Hafsa ni ko rek dama amoon yéene gàmm gi wax waa diwaan bi ku ci mën a gàmmoon si daaru nga gàmmoon si daru te bu ca ëllëg saa gunge ba ñu jagleel ko Seydina Ousmane ñu Cheikh Ibrahima Fati foofu ci këram gi ci daru ca ëllëg saa ñu ñaanal defal ko fa ay ñaan sëñ bi wax ne ne nañ fexe ba kilifa yëpp yëg ko moo waral yëg lañu ñu waxtaan ceeg xalifa ba Baye Abbas mu rafetlu ko lool waaw fekk ñu njëkk cee wax ak moom bin fa daataan ngeen ni njëkk cee wax ak Cheikh Mouhamadul Bachir bu Serigne Abdou Koudous wax ko ci liñ ci nam yëpp jubluwuñu ci dara lu dul rek euh, ndem diwaan bi ñi sos dama yóbbu leen woon ci jamonoy cheikh salih radiallahu anhu ñu matoon ñaar fukk ak juróom-ñett ma wax ko la ma ko wax ci diwaan bi mu wax ma la ma ca wax jox ma téere ba diwaanu sulkul jawahir fi axbaar sarair sëriñ salim turé mooy sama seede ñooñu eh, nekk membre diwaan bi yépp bokk ci njabatu sidna ousmane loolu moo ñu ni la weer wu nekk yiw wa ca nekk suñu boroom jox na ko ku tedd ki waaye ku tedd ki ku ne gis na ni fonke woon rabiul awal di weeru yonent bi ndax moo gën ci weer yi ndax ki ci feeñ jamono bi mu ciy feeñ suñu borom dafa jox ndigal géej yi saf xorom yépp dañoo saf suukar garab yi weex yépp dañoo saf suukar ngir taral yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, loolu la bokk na ci teraanga ji suñu borom teral yonent bi tedd ki wax nu ca jazbul xulub ni tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati eh, maanaam loolu leer na nañu dem boroom daaru mu ati nag la ko woon la tudde woon addu dil ay man defe naa ni bu ñu toogee bareen gàmm gi ñu bëgg koo gën a yaatal itam maanaam rek liñ eh, ci jublu mooy innal xasanaati yuzhibna sayyiaati moo tax xam naa ni sax li ci di ak yaatal ñoom Serigne Ousmane bu bàyyi si xel bi ak xale yi dinañ ko def waaye yëgle bi mënta ñàkk ci ñun noonu lañ ko yëgale itam xalifa bi fi nekkal Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ne jamono yee képp laay def ci ay noppam man zanna annal muntaqa lam yafuki ku wara fa huwa lam yuwafaqi waaw loolu nag kenn ku nekk rekk ak ni la yàlla binde ak na ngay gise ak na ngay doxalee waaw nu ndey doxin bii moom ak nii muy yëgee ku tedd keeg ni muy naf-nafee ci moom àlla kulli xaal yi na bu ne dañ koy xet guddeeg bëccëg di bëgg nu muy doolee di ko natt fu nekk nag di xool ku tedd ki fu nekk ndax fu nekk dara ma nga fa waaw koo xamante ni bii at mi yiw yi ci nekk yépp yaa ko moom weer yi noonu semaine yi noonu bis yi noonu juróom-ñaari asamaan yi noonu juróom-ñaari suuf noonu jaww ji noonu mu ndar képp lépp loolu moo tax conférence bii ma bëgg a def te Bruxelles incha allah altine dëgg la Modou Kara Mbaye ñu nekku fa Modou Kara Mbaye sama turandoo nekku fa ma nga ca golf ba ma nga Qatar waaye ci farloom la daal di woote la daal di woote foofa ngeen ñu toppatoo salle bi te mu fa yéene koo fekke ba coïncider nag ak tout tànkam boobu Eh, conférence bi moo tax téere bu ma defan boo xam ne dama jël fukki turu ku tedd ki ak ñaar benn bu nekk ma defal ko ci benn téere fukki tur yooyu ñaar nag laa bëgg a waxtaan ak xale yi foofa tur bu ci nekk la muy symboliser ci diggante ku tedd ki ak boroomam bay na laa ilaha illallah wa muhammadu rasulullah diggante laa ilaha illallah muhammadu rasulullah de 24 heures yi 12 heures de temps yu guddi yi ak 12 heures de temps yu bëccëg yi fukki turam yooyu ak ñaar ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tur bu nekk ma wax ci xale yi ma wax ci xale yi nan la def ak benn tur ci tur yàlla yi loolu conférence bi moom altine la du doon lu ñëpp yi mën a fekke waaye ngir ñu gaaral ko rek yëgal ko mbokki taalibe yi ngir ñu taatan ko ci réseaux sociaux yi eh, li nga xam nag moo jëm ci gàmmu daaru gi ak eh, ñaanu nóoree nit gi ca bu ñu gàmmu bi ca ëllëg sa di gunge bi loolu xale yi dinañ ko gën a leeral incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.